carte hmm? ah. ah, ah, maa ngi leen di nuyu di gërëm Serigne Abdallah sàll bi nga xam ni moo xelal mbiru documentaire bi ci président Mamadou Dia di wax ne que euh, ku bëgg président Mamadou Dia la te président Mamadou Dia dafa nekk nit bu nga xam ne addunaam yépp dafa xex ngir Sénégal waaw moom rek mooy homme politique bu def fukki at ak ñaari kaso maanaam 12 ans de prison te loolu yépp lu ko waral moo doon di xeex pour réew mi moom boppam développé waaw kooku nag tey bu demee ba sax yenn parti politique yu mag yi euh, jël ko considéré ko euh, di ko di di di ko di ko tuddee seen ay siège ak yooyu c'est parce que dañu xam kooku valeur am moo tax nag euh, tey ndonoom dafa nek li nga xamni ni waruñu ko négliger euh, Massène ndaysan mi nga xamni joge na fi yalla nako yalla xare aljana te yoron partium dafa am lu am solo li ma waxon ne Mamadou duja da ko wo ne ko am ma denk la sama parti ne na mu ne ko ah papa parce que duja ja ak masen dafa melon ni dom ak bay ne ko ah papa man aw mo moyen pour yoré parti bi ndax euh, ah, politique mom xaliss mo koy def mu ne ko teyel ma ko rek ndax man sama ay mbir war xajatu ci ndax dafa am ñu bari ñu mu àndaloon ci politique ñu war ko te Massène nag depuis ci tangu bayam muy Amadou ñang kooku nekkoon nit ku nga xamante ne daf ko moom la bind sax ci livre am fidèle parmi les fidèles euh, moo tax mu ne ko téyel ma parce que xam ne war bi du jóge mukk ci côté Massène Massène moo tax nag ba Massène demee moom tamit ba jëm mag ba mënatul mu xool ma benn bés ne ma jibi ma ni ko waaw mu ne ma yow ak lay cheikh na lay yen ay jayist ngeen mais ñu bari ñu ko waroon mu ne ma ñii dañu ba daf ci bari ay nit nga ku leen jox parti bi ñu jaay ko ndax alal ak euh, kiu àdduna moom la ñu jiital moo tax nag tey am na ñuy yëngatu ci suuf di di di di di wax di jëf duñu fe duñu fosal sax seen karam, dañuy bind rek di ki parce que ñu ngi bëgg tamit comme nu ko Massène waxee woon rek jaay parti bi waaye ñun ñi nga xam ni ndono bi Euh, c'est Seigne Abdallah Sall mi te nga di doon nit ku am diiné ku bëgg sëñ ku bëgg président Mamadou Dia euh diñu ci jappalé ñuy ñaan Yalla nañ ci Yalla may ndam ba ci yi sallallahu alayhi wa sallam ak wasifa yi tañuy dégg ah président Mamadou Dia nek au cœur du développement euh, de cette révolution sénégalaise maa leen di gërëm di leen sant di gërëmaat Serigne Abdallah Sall mi te nga xam ni lii yëpp koy dox di ko di ko di ci di ci di ci def action am euh, dooleem ak xelam ak yëpp mu ko ciy def mu koy gërëm yàlla na yàlla yok ay fanam asalaamaaleykum. bon euh, je voudrais dire tout d'abord euh, je salue euh, Serigne Abdallah Sall qui est un homme religieux qui est un homme qui se bat pour toujours conservé l'héritage du président Mamoudou C'est quelqu'un qui aime profondément le président Mamoudou D'ailleurs, euh, Nya, qui est un des fils du président Mamoudou c'est lui qui m'avait mis en rapport avec Seigne Abdallah Sall. Et le président Mamoudou n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie pour défendre le peuple sénégalais, pour sauver le peuple sénégalais, pour la souveraineté euh, de, ce peuple sénégalais. Et malheureusement, on l'a emprisonné. C'est le seul euh, politicien qui a fait 12 ans de prison. Il a sacrifié sa vie pour ce Sénégal. De ce fait, cette personne, on ne peut pas le sous-estimer. On ne peut pas, le, euh, on ne peut pas du moins la négliger. C'est quelqu'un qui a qui s'est combattu pour ce pays, qui s'est combattu pour cette nation. Euh, de ce fait, euh, son héritage, on ne doit pas négliger son héritage parce qu'il y a des gens, des activistes qui sont derrière et qui veulent vendre ce parti qui s'appelle le MSU. Nous qui sommes les héritiers légitimes, dont, comme le disait le président Mamoudou Dia à Massen, un de ses fils, quand il était, euh, il, il, prenait de l'âge, il l'a appelé, il a dit Massen, je veux te confier mon parti. Et Massen lui a dit, et eh, père, je n'ai pas les moyens de, gérer le parti. Parce que on est, pour faire de la politique, il faut les moyens financiers. Il lui a dit, ce n'est pas une question de moyens, mais c'est une question de loyauté. Et je te connais. Je connais d'où tu viens. Conserve-moi, attrape-moi le parti, et puis, Inch'Allah, tout ira bien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand Massen a pris de l'âge et savait qu'il devait euh, euh, donner la relève, il m'a dit un jour, toi et lui, vous êtes des jaïstes. Je vous ai fréquenté. Mais il y a certains qui sont autour de nous. Ce sont des gens qui sont là juste pour vendre le parti. Parce que quand même, Mamoudou a eu beaucoup de trahison dans sa vie. De ce fait, je, je suis là, je me bats encore pour cet héritage que nous, que nous, tenons, que nous respectons, que nous considérons pour que l'héritage du président Mamoudou ne puisse pas être un héritage vraiment qu'on a négligé ou bien qu'on a bafoué. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle je remercie encore Serigne Abdallah Sall, qui est un homme qui respecte, qui considère le président Mamoudou qui fait tout pour que son héritage puisse rester intact. Euh, euh, je, remercie les gens qui sont là et que Dieu fasse que un jour que cet héritage soit au cœur du système du développement sénégalais. Inch'Allah, c'est mon souhait. Donc, euh, je vous remercie, Monsieur Abdallah, que le bon Dieu accepte nos prières. Euh, kon alhamdulilah mbokk ñu ngi sant yalla bu baax ci suñu waxtaan bi nga xamni mo nekkon nekkoon anniversaire président Mamadou Dia ndax président Mamadou Dia dafa nekk suñu baay ba pare ñu koy nak yalla daf ko dimbalé mu bolé ñaar yo xamni képp koo xam ni soxla nga réew moom nga war a boole moo tax maa ngi dénk politiciens yi ñoom ñëpp nañu daw ñu xool kan mooy président Mamadou Dia ñu roy ko ci ñaari boor yëpp ñaari boor yi mooy lan mooy gëm yàlla bëgg yàlla fonk yàlla jaamu yàlla ni ko sallallahu alayhi wa waxee ba mel ne suba ngay dee président Mamadou Dia ci loolu la nekkoon président Mamadou ki nga gën a yaakaar ci wàllu yàlla gënu ko kawee ci wàllu yàlla koo xam ni vingt quatre mille salaatul fatiha la daan def par jour ci kaso bi ba gis na fa cheikh na ahmad tijaani gis na fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag noonu mu joxe woon yàlla léppam waaye tamit noonu la góorgóorloo woon ci wàllu àdduna ndax ñaari kat kenn mënu téye bii bàyyi bii da ngay jaamu yàlla ba mel na doo dee waaye da ngay liggéey ba mel na doo dee ba mel na doo dee mukk Mamadou Dia ku ne xam na ko tëral na ci ay plan ci wàllu xam-xam boo xam ni plan boobu buñ ko toppee Sénégal yëpp daañu am xam-xam tëral na benn programme économique loo xam ni buñ ko toppee Sénégal yëpp kenn du xiifati kenn du sonnati kenn du toppati gaal yi président Mamadou Dia tëral na benn doxalin woo xam ni buñ ci jaaree kenn du lekkati suñu alalu réew kii toog sama euh, wet nag muy Jibril Seck comme ni mu ko waxee. président Mamadou Dia dafa amoon kóllëre kóllëre googu mu jël parti bi dénk ko nijaayam Massène Niang biñ ko ko dénkee ndax xam na ni masin Niang du jaay parti bi yépp Jibril Seck wax na ko waaye Massène Niang ba mu ko téye itam moom mi nekk jarbaatam moo ko ci doon jàppale tabarakallahu ngir sàmm boobu la ndono ba nijaayam de demee ba jëm mag waa ñii doon dundal parti bi yépp taxaw ni ko yow kat gis nañu sa itte ak sa njàmbaar ak sa xam-xam bu ko neexoon toog ca Canada dégg nga ca Europe am na fa ay lijaasa soxla nañ ko fa waaye moom mi dafay damay ñëw liggéeyal senegal mu ñëw nag bàyyi eh, nijaay yi confié ko parti bi mu téye ko ba ñu nekkoon ci parti bi yëpp taxaw ni ko yow daal lii sa loxo yaa ko war yore yaa ko war a jiite kon alhamdulilah Jibril ñu kii kontaan bu baax ndax ñun président Mamadou Dia lépp lu mu bàyyi ñun dañuy jàpp ni ñun la ko bàyyil loolu moo tax incha allah ñu ngi sa wet ci jamono bu ne ndax yow yaa ngi ciy def sa alal yaa ngi ciy def sa itte dégg nga tabaarakallaahu te ni nga ko waxee rek Sénégal yëpp àndandoo nañu léegi même ñu yore parti yëpp xam nañu ni dégg nga kii kat mooy waaja président Macky Sall lu mu def euh, building nga xam ne fa la ñëpp di liggéeyee xam nañu président Mamadou Dia bi liggéeykat la ku ko topp Sénégal jëm ca kanam mu tudd ko building waaye itam euh, Ousmane Sonko itam ñuy ñaan yàlla na génn ci prison bi moom it chaise am bu mag bi nekk ci Dakar président Mamadou Dia la ko tuddee loolu nag ay tegtal la ay tegtal la même ña ko contrôle gannaaw gu yëg nañu ñoom ñoo nekkoon ci erreur kon ñu ngi am mbégte. ñu ngi am kontaan ndax moom dafa jëloon nag wàllu yàlla yépp jox ko sëñ abbas dafa daan wax ni bu ma yàlla doon bind nee na nitu yàlla yépp a ngi fi de yàlla ni ko waaw momadou je dama lay bind nag kan laa lay def mu ni mu ni mu ni dafa naan dafa naan dafa naan def ma sëñ abbas loolu nag mbëggeel ak cofeel dégg nga mënu koo dégg nga passé ci ak sëñ abbas moom wax na ma ni itam bi mu nekkee ci prison bi am ay lettre yoo xam mi ngi daan jóge ci ay dégg nga sëñ Abbas jox ay rawaxaan mu andil ko ci prison bi dégg nga leetar yooyu di ko dalal naan ko bégal te sant yàlla te xam ni yow kat sa kaso bi sa xéewal la sa kaso bi sa yokkute ci yàlla la sa kaso bi incha allah fukki at ak ñaar yëpp yàlla dañ dañ la ko remplacer ci kaw suuf nga dund lu bare bare bare Mamadou Dia dund daanaka doo téeméeri at masul naax kon nag foofu la ñuy yem rek moo taxoon tabarakallahu ngeen dégg témoignage yi nga xamee ni kilifa yu bare def nañ ko incha allah bu ngeen ñu toppee daañu ko dégg kon nag ñu ngi bëgg tabarakallah jibril jëf ñu ngi ñaan e, fa nga bëgg a jëmale liggéeyam bi te mooy partem bi e, fa nga bëgg yàlla na fa yàlla yóbbu bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam e, tabarakallahu waaye itam ñu ngi gërëm HLM HLM vision nga xam ni mooy ñu ngi ànd ak ñun ci suñu ay doxantu yëpp tabarakallahu Amadou Fall Khalil tabarkalla ak suñu jarbaat Pambay Wadd dégg ngeen sànq itam tawassul bi nga xam ni moom lañ ko ubbee sànq kon di nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu